ba mu yegg da ba mu yegg nag tisona di kon kenn du ci kon waaye nag yéegal nañu ko ca lirab bi soo ko xamul da nga naan jaw mu zakar salim wa ishrona wa baabuhu buntam ila tisina talaatona arbaona xamsona sittona sab ba ci tisona ba tey am na lu ñu ci yéegal beneen ahloona kooku jam un xayru mustawfis shurut moom de jamu ahlin la dégg nga te itam qad qad yakoonu sifatan ndaxam fa yuqaalu fulaanun ahlun li kada ay xaqiqun wa jadirun bi kada ahloona mën nañ ko def sax sifa waaye nag itam matalul charte yi ndax moom ca cosaan du alam du sifa du dëgg jamu ahlin la kon nag jamun la xayru mustawfi shurut uloo it yéegal nañu ko ci te moom mufrad la moom moom du jamu mufrad la waaye yéegal nañu ko ci ismul jam'i la ismul jam'i mufrad mu yor maanaam jam ka qawmin wa rahtin yooyu ismul jam'i la mufrad mu yor maanaam jam uloo it mufrad la ismu jam'i zi bi maana saaxib suñu la noon tey lu ismu jam'uy ban baat nga ni zi zi ban bi maana saaxib zi bi yor maanaam saaxib ismu jam'um la moom uloo lu tax teewoon ñu tëb tëb ni ismu jam'i saaxibin la xanaa fokk nu jaar ni ismu jam'i zi joo xam ne dafa yor maanaa saaxib te zi ak saaxib seen maanaa di benn lu tax mënunoo tëb ni ismu jam'i saaxib la mënoo ñu ne déet li mu niroog zi da koo li mu fi mu ni mu dajee zi dajewu koog saaxib lu tax li anna saaxib yudaafu lil taabici wa yudaafu lil matbuci bi xilaafi uloo ak zi bi xilaafi zi zi yudaafu li li taabici rek da nga naan rajulun zoo maalin du dëgg maalin taabici la ci rajul te bu fekkoon baatu saaxib la man nga ko yudaaf li taabici wa lil matbuci fa yuqaalu fulaanun saaxibu maalin fa yuqaalu abubakar saaxibu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ku cay taabi abubakar loolu moo tax uloo ni mu niroog zoo niroowu ko saaxib moo tax ñu doxale fi loolu ni uloo ismu jam'i zi la joo xam ne maanaam zi ju mat saaxib te tëbuñu tëb ni uloo ismu jam'i saaxib aalamoona moom itam moom itam ismu jam'i aalamin la lil oqalaa'i dégg nga ci aalamoona wa xayrihim yuqaalu aalamul bahaimi wa aalam aalamuuna waaye daal du jamu xaqiqatan ismul jami la ñu koy tudd aalamuuna ndax lu tax al aalamu fi l xaqiqa dab benn dab tam mooy ñu boole ko totaale ko ni maasi wallahi kon aalam benn lenn la bon manees na ni mufrat la waaye kon nag ismul jami la li asnaafi l oqalaay wa xayrihim aalamul malaikati aalamul insi aalamul jinni aalamul bahaim aalamul xayawaanaat dégg kon moom dañu ko ci yéegal waaye yelloowul jàmm illi yoona jam'un musamman bi jam'u la woon ci cosaan waaye musamman bihi la dañu koo def turu kër gu gën a kawe ci àjjana wala ismun yujma'u fihi a'malu saq salihina min asaqalayni linsi wal jin lu mu ci man doon kon bañ ko defee aw tur moom jamu jooju mufrad la léegi te it du dëgg kon du jam muzakkari salim ci xaqiqatan illi yoon wa araduuna ji firi ay suuf chadda génn na qiyaas moom it ci la ñu ko yéegal mu beral ko turu chadda génn na qiyaas maa anna jamii al mulxaqaati chaddatun lu tax li annahu achadduha chuzudan mboolem mulxaq yi chadd kon lu tax mu beral araduuna rek ñu chadd la nee ñu da cee raw ndax yii nu doon passé léeg-léeg waaye am ci benn charte manqué ca des léeg-léeg waaye moom dafa ñàkk yëpp ndax dañu noon baat bi ñu koy jamu day nay muzakkar buy alam buy sifa aradoona di ki na ardu de génn ne ndax ardu maana ida zulzilat al ardu kon ardu kooku benn génn ñu ne nay aqil ñu ne ba tey kon génn na de ndax ardu jaamit la du ardu du aqil du ñu ne baat ba xanaa bi ñu war a jamu da nga fekkoon muy mufrad nga di ko jam ñu ne ardo aradoona jamu taksir la boole ci ndax taxyir gaa ngi seetoo fataa gi ñu fataaraa gi ah te te ard dañuy sukkoon raaxam léegi araduuna bi ñu koy yéegal ci jamono ji toujours raagi dañ ko war fata dégg nañu fu ko arab sukkoone booba daruratan laqad dajjat l arduuna id qaama min bani xatibin saduusa xatibin fawqa awaadi minbari foofa day nee na fa laqad dajjat l arduuna sukkoon fa raaga ñu ne loru way waakat waaye araduuna la arab di wax te kon moom jamu taksir la du mufrad du aaqil muannas la lu ko andi ci jam mulxaq moo tax nag mu beral ko ne eh aradoona nag chadam maanaam dafa ka annahu qaala moom chuzuzam jéggi na dayoo moo gën a doon sayi wa sinoona wa baabuhu yéegal nañ ci leneen baabu sinoona sinoona ak yu mel ni moom la tudde baabuhu mooy bépp sulaasi ba xam ne xudifat laamuhu wa uwida anha ha attaanis walam yukassar taksiran yu'rabu bil harakat baabu sinoona foo fekkee lisimu sulaasi boo xam ne laamu baat ba la ñu xadaf di ko remplacer ha utaanis ca mufrat ma ni ki sanatun sanahun moo ci doon cosaan dégg nga ndax soo dee wax amaltuhu ni ngay waxee surnaalu mu yaawama yaawamtuhu maanaam jëflanteeg moom naa parbis soo ko defee ci baatu sanatu cosaan ba delsi nga ni saanahatuhu ak musaanahatan haaga nga xam ni haawut haa moo fa ne woon ñu xadaf ko remplacé ko haawut taanis boobu kon sulaasi yu bu ñu xadaf laamu baatam remplacé ko haawut taanis te amul nag jamu taksir ju ñuy liraabi xaraka wa illaa kenn du ko su dee sulaasi yu kenn xadafal ko dara kenn du ko ci yéegal moo tax baatu tamratu kenn du ko ci yéegal kenn xasal ko ca daal du dal maanaam bokkul ci buntu si noonu daal bu ñu ko bu fekkee ni dañu ko xasaf walam yu awat shay'an kookaatam duñu ko ca yéegal du dal ni ki yadun wa damun kenn du ni yadoon ak damun ndax yadun kat yadda yun moo doon ci taan xasaf nañu laam baatam waaye kenn atam damut dama wun lambaat ga waaw la woon waaye bañ ko xasafee dañu ayin ga lañ fa ba ak faaga rek a damul dong la ñu kon lam yu awat shay an dégg nga bu fekkee ne tam sulaasi la naam xasaf nañu laamu baat ga dégg nga xaw a remplacé nañu ko haa u tanis dégg nga bo na fekkit nag gannaaw ga amul jamu taksir looloo tax baatu shafatun ji firim tuñ kenn du ko yéegal ci sulaasi la xadaf nañu laamu baatam ndax moom itam shafahatun moo doon cosaanam bu ñu boo ko jamoo jamu taksir xaaga feeñaat nga naan shifaahu aytun xadaf nañu ko kenn remplacé ko na ah looloo tax itam sulaasi yu bu ñu xadaf te la ñu xadaf du laamu baat ga moom itam ni ki tey ibnun sulaasi yu la naam ba ñu demee bay xadaf lu ñu xadaf maanaa xadaf nañu laam baat bi waaye maanaa remplacé wuñu ko aw taanis lan lañu ko remplacé xam sag waslu ci njëlbeen nde boo nee bintun xam sag du fi dikk waaye nag ibnun moom sulaasi la waaye maanaam laamu baat ga lañu xadafit waaye nag remplacé wuñu ko aw taanis dañ ko remplacé xam sag waslu yooyu yëpp ci ay muxtarasaat la ci baabu sinoona maanaa yooyu yëpp kenn du ko baabu sinoona baabu sinoon kasi ni na yusufa waaw kooku kooku dananu dikk tuuti dana dana ñëw dana ñëw sulaasi yu boo xam ne xasiba laamuhu loolu moo mel nan kasubatin wa subina wa iratun wa irina ak ay baat yu ñuy taada dégg wa idatun wa idina dikk na ci alquran جعلوا القرآن عظيم عن عزينات نيونا عن اليمين وعن الشمال عزين جمع عزة لأن معنى أي كري كري عظة معنى أي فن آه من باب سنونك ومثل حين قد يرد يولين دونها وقد يرد من ديك واي قد جي موتك تل تقليل تلاكو عرب دقلا باتو سنتو ليلة xad yari du mën na ñëw bu ñu koy liraab bañ koy yéegal ci jamu zakari salim xanaa bàyyee ko yaaga faf ak xaraka ya doon mas li rab ja doon xaraka yu ne ca nuun ga ni ñuy def baatu xiin xam nga xiinun xiinan xiinin ngay wax min xiinin ah waxat yaridu mën na dikk buntu si noonu ay tàng misla xiinin ni kii ñu di ko loolu kooku nga wax danañu ko defal seet allahuma ajalha alayhim siniinan ka siniini yusuf siniinan ña ngi ko nasabe ak nuun ka siniini ña ngi ko jare ak kasara ca nuun zalbaabu wa qad yaridu mën na ñëw zalbaabu buntu si noona bii misla xiinin mel na xiin fii luzoomil yaa i wali arabi bil xarakaati ala nuun wa huwa moom loolu sax muttaridun yattaridu muttaridun benn nusxa la moom laa gën xam wa huwa moom inda qawmi ah déedéet yattaridu fii lu mu daare la toujours kat wa huwa moom yattaridu dana qiyaasu moom luxa boobu inda qawmin am na ñuñ foo ko fekk baabu si noona mën nga koo def bihi ltaxaq majmuuin wa ma bihi ltaxaq faftax wa qalla man bi kasrihi nataq nee na noonu lu ñu jamu jamu muzakkari salim wa ma ltaxaqa bihi ak lu ca jokk te mooy yi nu doon lim démb ci bind bi nee na nuun googu dañ koy fata kon soo bëggee wax woy wi mën nga fataa mën ngaa nasab nuuna muy mafal nga ni waftax fataaxal waaw ga ca wa nuuna nga boole koog baatu faftax kon nag fokk da nga ci wacc lenn doo man ni wa faftax déedéet da nga naan waftax fataal nuuna majmuuin nuunu lu ñu jamcu jawmi muzakkari saalim wa ma bihi ltaxaqa ak lu ca jokk ci alfaaf yi nu doon lim démb loolu mooy li ëpp ci loxo arab ba tax na la dul loolu lu néew lañ koy dégg loolu la ni wa qalla néew na man nataqa ka tudd ci seen wax bi kasrihi ci kas rek nuunu jam muzakkari saalim ni ki tey waxu waykat ba ni wa maada yabtaxi shuaraau minni wa qad jaawastu xaddal arbaini xam nga arbain ci yi ñu yéegal ci jamu muzakkari salim moog salaasin ak yooyu ñooy waaye foofu kasra nañu ko fi waaye loolu dafa taxut rek mu bare ba tax na jaru la roy ne wa nuunu ma sunniya wal mulxaq bi bi aksi daaka staamaluuhu fantabi nuunu maa sunniya nuunu loo xam ne nuunu moom tasniya la wal mulxaq bihi ak nuunu lépp lu ñu yéegal ci tasniya dégg nga moom it tasniyaat dafay am yuñ ca daan yéegal xam nga ni ni ki isnaaneeg isnataaneeg yu deme noonu tasniya ak luñ ca yéegal nuunam istaamaluhu jëfandikoo nañu ko bi aksi zaaka mbir mu muy nekk ci safaanu loolu di nuunu jamo comme moom dañ ko war a kasra kii moom kon maanaam dañ ko war a fata kon kii moom dañ ko war a kasra nuunu tasniya ak luñ ca jokk nga ni zaydaani bu dee luñ ca jokk ni ki isnaani ak yu deme noonu dégg nga moom itam safaanam lu néew la ñu muy ñàkk am dégg nga ni ki aarifu min hal jiida wal aynaana wa munxarayna asbaha zabyaana boobu bayt daal ak lu dégg nañ ci arab fata nuunu jam waaye ni nga xam ne loolu duñu ko compté ni nga xam ne xaddal arbaini ci kasra nuunu jamo duñ ko duñ ca jàpp noonu rek la demee kon ñuy kuy jëm kuy jëfandikoo wa maanaa fata nuunu tasniya mooy safaanu le xam nga kasra nuunu jamo la ni néew na wa qalla man nataqa bi kasri nuunil jami ni ki tey xaddal arbaini ci bayt wi nu tudd loolu naka nuunu nuunu tasniya istaamaluhu jëfandikoo nañu ko bi aksi zaaka ci safaanu loolu kon kasraam moo bare fataam lu tuut lañu ko dégg kasraam moo ngi ne zeydaani muslimaani ni fataam lu néew lañu ko dégg dégg nañu ko ci aarifu min hal jiida wal aynaana wal aynaani nga ni aynaana wa mun xurayna ñaari pas kani bakkat foofoot fataa nañu ko ah yooyu néew na su mu dem ci benneen buntu niyaaba te mooy jamu muzakkari salim niyaaba muannas salim waaw niyaaba liñ ci jublu liraab bi xarafi maanaam liraabu alaamaatu liraab yu cosaan moo doon damm ak fata ak kasra ak sukun niyaaba niyaaba bu ñu ko dee wax mooy yi nga xam ne yeneen moo fa di remplacer loolu niki ci boo demee yi ñu daan wax ci baabu alaamaati li arab rek mu ni nag wama lépp loo xam ne xat jumia dañu koo jamoo bi alifin ci alif wa taa in ak taa mazidatayni moo ko tax di wax wama bi taa wa alifin xat jumia yuksaru fi ljarri wa fi nasbi maa wama bépp lisim boo xam ne jumia xat jumia dañ koo jamo bi bi taa in wa alifin mazidatayni taa ak alif yoo xam ni ndolant lañu de waxuma ñoom ñëpp su ca benn dee cosaan rek jamu jot jamu taksiir la waaye du jamu muannas salim de du dëgg su fekkee alif gi moo fi cosaan dégg nga taa gi dong moo fi dolliku dégg nga ni ki qudaatun jamu qaadin kenn du ko wax kooku jamu taksiir la déet maa ngi ñëw maanaam su fekkee alif gi zaida tey ni ki am waatun wala taa gi ñu feen di mooy zaida ni ki qudaatun jamu qaadin kooku jamu taksir la ñu yooyu yaar kenn du leen wax jamu muannas salim jamu lañ am waat jamu mayit bu ko tudde jamu muannas salim ndax dëgg la alif jiitu na taa topp ca waaye alif gi doo nga fii gan taa gi cosaan la fii ndax ma nga ca mayitu mufrad ba qudaatun jamu qaadin bu ko tudde jamu muannas salim jamu taksir la ndaxte alif gi cosaan la qadaa yaqdi yaa googu ba ko fataa jiitoo moo soppiku alif haawu taanis gi doo nga fii gan kon kooku du jamu muannas salim jamu taksir yooyu yaa loo tax looloo taxoon ma war ma dolli la fi masida tey ni yu ñu yokk ñu bañ di cosaan benn du ca cosaan dégg nga de wama loo xam ne xat jumia dañu koo jamoo bi alifin ci alif wa taa in ak taa yoo xam ne gan lañu dañ leen faa dolli benn du ca cosaan ci ñoom ni ki tey hind nga ni hindaatu alif geeg taa gi bokku ci kooku yuk sarul atteem mooy nañ ko kasra fil jarri ci jarga wa fi nas bi ak ca nasab ga ba ñuy liraab kooku kasra mooy doon mandarga nasabam mooy doon mandarga jaram nga ni tey ra'aytul hindaati ak marartu bil hindaati kadanaka noonu ulaatu baatu ulaatu ulaatu dañ néewoon naa la aywa lu ñuy ataf bokkut ak maatuuf alayhi al atf yaqtadi al mugaayara naka noonu nirale daraak daraat war na tegtale ni kon bokkuñu kon ulaatu bu ñu ko tudde jam muannas salim kon moom ismul jam'i la te kon mufrad la ismu jam'i zaatu bi maana saaxibati ni nga xamee ni uloo ismu jam'i zi bi maana saaxib mooy mu mooy bu jigéenam maanaam uloo mbooloom góor lay bëgg a tegtale ulaatu mbooloom ay jigéen lay bëgg a tegtale waroo mi nàngam dégg nga kon ulaatu daal du jam wanna salim waaye yéegal nañu ko ci ci leeraat nga ni wa ulaatu laxmaali rafaaye ko dam du dëgg waaye soo ne raaytu ulaati xamlin kasra googu mooy mandarga nasab du dëgg dégg nga kadaanaka noonu ulaatu walladi la nga xam ni ci jam wanna salim yi qad jucila dañ ko mujj def isman muy lisim niki adriat ak arafat kooku jamu arafatin ak jamu adriatin adriatu jamu ziraain adriat jamul jamci la woon ci cosaan ziraaun nga ne dégg nga nga ne ad ruin adriatin del ne adriatin mu doon turu réew turu dëkk ca Cham doon adriat kooku lañu def isman muy lisim ci jam muannas salim qubila nangu nañu fii ci moom zali rab bii nu wax rafaaya damm nasabe jare kasra qubila nangu nañu ko ci aydan ba tey ka adriatin fa ida afattum min arafatin ña ngi ko jare kasra bu ñu ko doon nasabit daga naan daxala ara daxaltu arafatin kasra lañu koy nga wa jurra bil fatxati ma la yansarif beneen baatu beneen buntu niyaaba ngoog buntu niyaaba yi juróom ñetti bunt la wa jurra jaral ma lisim ja nga xam ne la yansarifu du soppiku maanaam tanwiinu sarf du ko dugg duñu ko jare kasra lisim jut ñu tanwiinu sarf dul dugg duñu ko jare kasra moom la nu nax yoonay tudde ma la yansarif wa jurra jaral ma la yansarifu ni ki ahmada bil fatxati ci fata maalam yu daf feeg laafuñu ko de bu ñu ko laafee ak ma la yansarifam yàqu na aw yokk wala feeg nekkul radifa topp baada al ci gannaaw al bu ñu ko taaraa def ci alif ak laa maa laa yansarifam yàqu na dañ koy dellu di sarf di ko jare kasra dégg nga ni ki fii ahsani taqwiimi ahsan was nu afala la di sifate loolu ñaari illa ngi ci lisim ji ko yor maa laayam sarif lay doon ñaari illa yu koy tee sopp ahsanu du dëgg ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi ahsana minha seetal ñu jare ko ak fata waaw du dëgg waaye ya na nga xam ne li mu laaful dara moo tax yorul al du dëgg soo fekkoon ne da nga ni tey marartu bi ahsanihim laaf gi mu laaf dana tax kenn kenn defatu ko maalayen sari wala axastu jàpp naa man bil ahsani ca la gën a rafet kon it yor gi mu ànd ak al moo tax dootu doon maalayen sari moo tax mu ni nañu ko jare kasra xa ndaxam nax yoona yi ci seen bëgg wute ñu ngi wute est ce que bu boobaa turu maalayen sarif des na ca wala desatu ca waaye lu mën a xew jooja ug jooja liraab moom dañ na liraab bu maalayen sarif te mooy jare fata dañ na ba ñu ko laafalee wala ba mu yoree al ni ki fii ahsani taqwimin gis nga laaf taqwimin moo tax ñu jare ko kasar waaye fa xayyoo bi ahsana la ñu wax moom mi nga xam ne laaful dara dégg nga su yoree al noonu ni ki axadtu bil afdali dégg nga maalam yu daf feeg laafuñu ko bu boobaa kenn dootu ko jare kasra aw yàkk wala feeg nekkut radifa topp ci baada al gannaaw al ni ki wa antum aakifuuna fil masajid yi nga ñu jare ko kasra te soo noon su dul woon al ji tey nga ne daxaltu fi masajida lu dul su fekkee da nga koo laafal moom it nag rek waj nu dem ci beneen buntu niyaaba jamu maanaam lisim yi juróom waj al defa liraab ja bunt bu ñu la ci wax liraabam day wuute la fag liraabu moroom ma fiil yi juróom liraabam ay xaraf lay doon waj'al li naxwi yafalaani nuuna rafan wa tadciina wa tasaluuna waj'al defal an nuuna nuun rafan maanaam alaamata rafin li naxwi yafalaani ci lu mel ne yafalaani mooy bépp mudaaricu boo xam ni dañ caa yokk alifu ñaar alif buy tegtale ñaari nit moo xam yaa nga ko tàmbalee ni ki yafalaani wala taa ni ki tafalaani lu mel na yaf alaani ni ki yadribaani ak tadribaani yu demee noonu wa tadciina ak lu mel ni tadciina mu ngi ci jublu bépp mu daari u boo xam ni dañ caa jokk damirul muxaatabati ni ki taajabiina wala tafaliina kooku noonu la ñu koy rafal wa tasaluuna mu ngi ci jub lu mel noonu bépp mu daari u boo xam ne waaw jamaatul mudakarina moo ca jokk yaa ni ki yafaluun kooku kon itam yooyu yëpp ñoom la ñu tuddee fiil yi juróom nee na nuun na nga ko def muy mandarga rafa raf an ay alaamata raf in la ji wa xadfuhaa dagg nuun googa xadaf mooy dagg wa xadfuhaa dagg nuun googa ñu ko daan rafaaxe simatun mandarga la lil jazmi wa nasbi soo ko dee nasab nag nga dagg nuun ga nga ni in maanaa lam yadribu bu dee mbooloom góor lam yadriba ba mu jeex sooy nasab ni ngeen ko xamee rek ci ajarum ni ki misaalam lam takooni nekkoo yow ndaw si li tarumi pour ngay sàkku mazlimatan ak tooñ rafaaga ji nga maanaam la takooni na ba nga ko bëggee jasam nuun ga dañ na nga ni lam takooni nekkul nekkuloo lam tadribi dooruloo aywa laamu juxuud dafay nasab mudaariu maa kaana allahu li yadara almuminina ay lam takooni ne ko li tarumi tarumiina nuun ga day dañ ndax laamul juxut kullu laamin qablahu maa kaana aw lam yakun fa lil juxuudi baana maa maanaa laamu juxut nuñ koy xame fokk maa kaana wala lam yakun yooyoo koy dawl ki maa kaana allahu li yadara lam yakun illahu li yaxfira lahum kooku kon nga gis ni kon mandargam jësamam ak mandargam nasabam mooy dagg noonu mu dem ci beneen buntu niyaaba wa sammi mu déedéet niyaaba yi jeex na lii doota wa sammi tuddeel maa min al asmaa yi ci lisim yi wa sammi tuddeel maa la nga xam ne kal Moustapha dafa mel ni Moustapha wala muy yaxya wala muy beneen lisim te mooy dabt bi mooy fata moo dawlu gu sax dàkk alif mujj xëcc ko ni ki Moustapha wala lu mel ni murtaqi dabt bi mooy lisim joo xam ni dégg nga yaa dafa ca mujj gu sukko gu kenn sàddawul kasara gu sax dàkk jiitu ko dàkk jooju ma wax gu sax dàkk jooju mu atabar la ndaxte lisim su ca alif mujjee fata dawlu ko bala ñu koo tuddee kile bala ñu maanaam bu bu ca yaa mujjee ju ñu sàddawul te kasara dawlu ko balay tax ñu tuddee ko dégg nga manquus du dëgg wala Moustapha ja ñu di ko tuddee maqsuur yooyu nag mooy seen turi xaas ama mu'tal moom doon nañu ko ñoom ñaar yëpp waaye nag Moustapha dana la wax ni maanaam maqsuur lañu ko tuddee dafa fekk alif ga sax fa kasara ga su doon ci lisim yi juróom axaaka noonu la mel waaye kenn du ko ni kenn du ko ni maqsuur ndaxte alif gi ak fataa gi nasab doo nga ko fi indi boo doon rafaa wala ngay jar axuuka ngay wax wala axi bi axiika tam aywa murtaqi itam maanaam manquus te dana la ni manquus la tudd murtaqi dabt bi mooy bépp lisim boo xam ni dégg nga yaa ca mujj kasara gu sax dàq ko wuteeg bi axiika wal murtaqi aji yéeg makaariman loo xam ne daal fataa ca alifa ca mujj fataa daawul gu sax wala loo xam ni kasara ca mujj maanaam yaa ca mujj gu ñu sàddawul kasara gu sax dawlu ko na nga leen tuddee mu'tal ci biir li'tidaal gi nag fa la wóolu bu njëkk bi nga xam ne moom alifa ca mujj dégg nga li'raabu li'raabam qudira dañu koy nattale fii ci moom jamii'uhu rafaam du feeñ nasabam du feeñ mandargam nasabam mandargam jaram du feeñ ndaxte kasra gu ñu nattale lay doon ndax alif laa taqbalul xaraka dégg nga moo tax mu ni fa la wóolu bu njëkk bi bi nga xam ne mu alifa ca mujj te dana la wax ni léegi moom la ñu tudde maqsuur du dëgg kooku moom li raabu fiihi quddira jamiu ah wa thanam wala walu li raabu fiihi quddira jamiu wa huwa moom alladi mooy la nga xam ne qad qusira qasru nañu ko alladi mooy la nga xam ne qad qusira qasru nañu ko moom la ñu tuddee maqsuur maqsuur ci lan maqsuurun an lan anil anil madd ndaxte waxuloo Moustapha u xanaa ni Moustapha rek yem ci maqsuur mooy lisim ju alif mujj fata dawlu ko mamdud mooy loo xam ne alif ga nag xamsa dafa dikk ci gannaawam nga di ko jàng alif gu gudd ni ki xamraa u moo tax ñu tudde ko maqsuur wa saani ñaareel bi te mooy murtaqi manquusun la ñu koy tudde dégg nga wa nasbuhu nasabam nag mandarga nasabam zahara day feeñ li xifati alaamati nasbi wa huwa al fath fata mooy axaful xarakaati mooy fata moo tax yaa ju mujj te kenn sàddawu ko sax fata moom mën na ca feeñ bu dee feel bu dee lisim xataa yaatiya amrullahi bu fekkoon ni rafaa gaa du feeñ da nga naan yaati yi amrullahi da ngay bàyyi yaa gi musukkoon nga nattale fa dam su ko defee waaye nag woyof ga dana tax moo tax mu ni wa nasbuhu mandarga nasabam zahara feeñ na ca kaw yaaga ngir wax wa rafuhu rafaamit yun waa dañu koy nattale nag ba tey moom manquus nga ni jaa al murtaqi dégg nga de fa rafaaga damu rafaaga dañu koy nattale dégg nga kaza naka noonu yu jaru lañu koy jare aydan